mais euh, kon euh, africain yi ña ngay wéyal bu baax a baax euh, seen taxawaay donte la jàmbaar mu ngi desandi ba nëga ni ci boppu classement bi VSD sunu gaynde yi dibéer gile am na jéego yu am solo yu ñu def bokk na ci Cheikh Kouyaté bi nga xamante ne moom mbirum famille moo tax bokk ci woon waaye Sadio Mané def am échec ca ak Liverpool diggante moom ak Manchester United super coupe dinañ ci wax tax Barça daanu na Messi daanu na lu xonk tur la gis démb Afrobasket Boniface donc daal dina siwal fukki gaynde ak juróom-ñeent service mhm. kon Bara Fadou ko bàcc démb waaw bàcc démb waaw di ko xoojaade waxee da nga ko jukki incha allah ci ñaaru pàcc xabaar yi lay doon bokk yi ginnaaw ba leen nuyoo gërëm leen ci ànd ak ñun seen télévision di faram fàcce gi ci mbiru couvre-feu dafa mel ni sénégalais yi dayoon leen sëkk ci couvre-feu bi ndax tëj leen xàpp moo leen jaaxal ñu jàpp ni xëy na sax amul benn effet ñenn ñoo jàngate noonu leen lu mel mor ñu jàpp ni dafa war a jeex ci biir Sénégal gi gëstu Oumar Thiam reportage réew mi dina wax ak askanu Sénégal fii ak ay waxtu rek ngir ndaxam dinañ maintenir couvre-feu bi am déet ak waxtu bi réew mi toll nag li ëpp ci askanu Sénégal li ñu bëgg na couvre-feu bi waxtu bi ñu aj ko wala sax ñu daal di koy jëlee fii benn yoon. moom euh, limu mu si xalaat mooy euh, bi ñu ko defoon à 22h ñu ko ba 22h bu ko defee euh, nit ñi mën a ñibbi tranquillement nga xamante ni dina permettre ñëpp mën a ñibbi si jàmm parce que 21h dafa xaw a gàtt daal trop.

na ñoom ñi sax umpale wuñu benn yoon méttitu mbas mii di covid 19 waaye lu ñu mel na taxul ñu mën a charton teg mesure barrière yi li ko waral nag moo di ñàkk espace wala li mën a feesal seen i gafaka nit ñi mën nañ jël seen matuwaay comme léegi seen ci comme ni ñuy doxee ku nekk jël seen matuwaay takk say mag takk say lépp yaakaar naa moo wóolu moo gën a wóor quoi parce que mënoo nekk amoo moyen nga nekk ci benn néeg ngay nekk juróomi nit wala juróom-ñetti nit comprendre nga bu boobaa On a yokk. nañu du virus ah, c'est ça le problème ah, mais il y a des cas sociaux il ah, y a des secteurs informels bon les gens ils n'ont pas de salaire. ñi ëpp ci askanu Sénégal nag gisuñu njëriñ bi lee couvre am na ko wala ñu koy dàbbali ndaxte rek fan yi li ñu nemmeeku kaay yi moo ngi gën di yokk li ni mel nag day firndeel nii rek ni couvre-feu bi amu fi benn njëriñ waaye nag ci gis-gisu ñenn askan wi li ñu jàpp rek mooy taa bi na xoolaat yeneen pexe boo xam ne dina ci gën a mën a xeex mbas mi di Covid-19. Oumar Thiam jaajëf bu fekkente nit ñenn ci Sénégalais yi dañoo toqi xaati ndax ubbi ràpp 21h ba 5h du matin moo leen jaaxal. tey jii ci la ñuy xam ba xam dañuy ajji am dañuy yokk waaye bu defu ndànk yokk moo nar a tegu ndax président Macky Sall dina saisir tey jii pencu ndaw réewum Sénégal laaj ndigal ci yokkute gi jëm ci wàllu guddi ñu xuus seen nam war a demee ak nus ko war a gëstoo sama bi ak doon def ab gëstu ci wàll guddi dañ daañu ñëwaat ak moom ci digg ci xabaaru marax incha allah ngir xam dëgg-dëgg ana ban dogal le président Macky Sall war a jël ndax li fekk vingt heures war nañoo mën a xam ana dogal ban lay jël yokk lay doon wala dañuy mujjee dakal ginnaaw bi ko docteur yi évaluer impact boo ko fa bi ndax am na njariñ am ndeet ñu gis ni tey jii ñi ngi ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci nit yu amee feebar bi ñu ngi ci fukki fan ak ñaar jàpp ñett ba couvre-feu tàmbale ak léegi ci biir euh, Sénégal gi mu ñaaxal ba couvre-feu bi. xibaar yi wuy ci benn wàll ñu xuus wax ci lu soxal li nga xam mooy ba tey Covid 19 ak tolluwaay bi ñu ngi ko juju sàngam bu ñu dellusiwaatee ci docteur professeur El Hadji Mouhamadou jaay jot na becc ci tolluwaayu Sénégal ñeent fukk ak nangam ci ay cas ñoo nekk Réa sonn ba nekk Sowétas am na téeméer ak juróom-ñeent fukki yu wér ba dellu seen ay mbokkum ni ma ko waxee sàng doonte téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay nit ñoo amee feebar bi kër docteur delluwaat na yëkkati kàddu askan wi xeex bi li fi jëlee Covid mooy fagaru gi ca mooy takk mbuuka yi masque yi yi wattandi ko dajaloo yi yooyu mooy tax ba mbas man fee génn ba askanu Sénégal amatuk feex feex googu sax ñu bari ñu ko bëgg waaye ba léegi jàppandeeku daanakam lu ñu mel moo tax ñu gis ni fan yii dafa yokk contamination yi dafa yokk lool ak ñiy faat tamit yokk naka la ko Sénégal yi jàngate ñenn ci ñoom fi kàddu jib na ci gëstu Abdoulaye Diack reportage wéy di yóbbu ay bakkan fii ci Sénégal ñu ci bëri ci askan bi nangu ñoo dëppoo ak digle waa kër docteur loole nag lu ko waral duwul dara lu dul ñàkk gu metti gu ñu nemmeeku ci biir dëkk bi. les gens sont devenus aigris dus à la pauvreté ñàkk baaxul te la seule maladie mooy pauvreté mooy gën a graaw Covid 19 man maa wax loolu pauvreté. les premières mesures barrières de se laver les mains les masques. Maysa Fall di sàkku ci màkkaani jëwlin bu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi ñu soppi anam bi ñuy communiquer ak askan bi jébbal ko docteur yi ndaxte ñoom bu ñu waxee askan bi dinañ leen may nopp. bi moo jaarul yoon parce que tey bu doon blouse blanche moo taxaw di wax ñëpp da xoolal Seydou bu daan génn télé ñëpp dañuy ñëpp di ko déglu Bousso buy génn télé ñëpp dañ koy déglu léegi yow man du ma médecin nga jox ma micro ma naan Covid 19 nangam ak nangam su ma paree da ngay sa loos dafay dem sa yoon. dañ ko médecin ñu ñu sal bulu a wax Serigne Thiaw Khossi di sàkku ci askan bi ñu gën a booloo waaye itam wàññi dem beeg dikk bi ngir mën a xeex ak coronavirus bi. bakkan yu bare bare bari kon kuy nekk jullit mbaa kuy nekk beneen tarixa boo bokk jullit musulman chrétien ñëpp ci war jóg taxaw taxaw seetlu ci xam ne lii du ay caaxaan. lu am la lu wér la am na déplacement yoo xam ne c'est inutile wàññi déplacement yi daal bu ko defee jël mesure barrière yaakaar naa ak euh, boole ci na euh, di ñaan yaakaar naa daal suñu borom dina ko tegg ñaareelu vague bu Covid 19 bi wéy di yóbbu ay bakkan fii ci Sénégal limab ñu ñàkk seen bakkan weesu na juróomi téeméer loolu waral ba ñuy taseet di sàkku ci askan ñu gën a dëppoo ak digle waa kër docteur. digle yooyu sax que docteur digle ngir docteur wi moo tax ba boo demee ci yenn gox ci biir Sénégal préfet jël ay dogal ànd kook délégué marché yi ak seen ay maire yi lu ñu ci bëgg mooy di tëj marché yi yenn heure yi ngir man ca xëpp poudre dañuy wax désinfecté boo war a mën a rey la ca nekk ay xeetu doomu jàngoro ngir dagg law tanu Covid 19 ci biir Sénégal gii lu mel nag naka la koy yenn sénégal Sénégalais gisee su lay fàttu ndaw def na ab doxantu ci yenn marché yi reportage. ñi nga xamante ni nag ñooy teewal état bi ci diwaan yi moo sax ci gox-goxaat yi taxaw nañu temm ngir rekk xeex ak mbas mi di Covid 19 foo ci mel ni cees ak Géejawaay bërëb yooye nag li jëm ci jàbba yi dañ leen tëj dibeer bu ne ngir rekk désinfecté ko fii nag ci marché ngelaw ñii di fa amal seenub yëngu-yëngu di ci joxe seenub xalaat. Ah, nit ki nag buy liggéey itam war naa bëgg wér-gu-yaram moom ak wér-gu-yaram moomu askan bi yëpp. tëj maati ci benn semaine moom wax dëgg yàlla méttiwut loolu rafet nañ ko war naa mën a nekk jaadu na jekk na yàlla na ko yàlla def parce que tëj marché yi defar ko raxasaat ba mu set pompe loolu sécurité la yokku la mu doon nag ab gis-gis bu daal di méngoo ak bu waa ji muy bàyyiloo xel bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ci benn mbir moo xamante ni waruñu ko sàggane suñ côté yi ñi nga xam ne dañuy jaay loo xam ne lekkuñu ko suñ clients yi duñ ci fekkante clients dix minutes wala quinze minutes beneen client doo ko ñëw ñun suur yi gën di euh, gën di liggéey mooy samedi bi ak dimanche bi ndax ci la ñuy gars yi duñ liggéey samedi ak dimanche ñëw di gën a jënd waaw kon bu ñu bu ñu dee wàññi heure yi daal ñu may moom ñu mën a liggéey yeneen suur yi daal. naam sax bépp dogal baax na ngir rek ñu mën a fàggandiku ci mbas mii di Covid 19 waaye nag li ci njëkk rek moo di ñu daal di sàttoon dekk takk masque yi maanaam nguuka yi. li ci gën a am solo mooy ñuy takk masque yi. ñun jaaykat yi ñuy takk masque yi mbas mii di Covid 19 daanaka xeexu askanu senegal yépp la état bi bàyyiwul dara ci ay jumtukaay ngir rek ñu gën koo mën a xeex li jëm nag ci askan bi ñoo ngi def seeni kéemtalaay kàttan ngir jàppale ko ci. xibaar yi woy ci beneen mbir mi ngi soxal ba tey rëbb gi nga xam ñu ngi koy rëbb. ñu dër bopp ci biir euh, euh, Sénégal ak lu jëm ci wàllum couvre bi ca Guédiawaye commissaire ba fa nekk def na bilan lu néew néew jàpp na juróom junni ci doomu aadama 5000 personnes la ñu arrêté lañ jël ci ñoom ay koppar di ak ndàmpaay gu nu fay toll na ci juróom benn ci ay millions mu francs CFA loolu du benn bis waaye dirub fukki fan ak ñaax layu njëkk yi moo tax commissaire Madjibou Leye becc na ay kàddu dénk na ko mu Ibrahima Togola Biram Sène semaine fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñaar teg nañ nag lu toll uh, ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ci ay nit ci fukki fan ak juróom ba jàpp ñaar fukki fan ak ñeent jàpp nañu nag lu toll ci junni ak ñaar téeméer ak ñeenti nit waaye nag ci semaine bi mujj rek teg nañu toll ci junni ak juróom-benn téeméer ci ay nit loole lépp nag boo ko boolee rek di nga jege lu toll ci juróomi junni nit yoo xamante ni daal uh, teg nañ leen loxo ci loole nag ñu daal di ci yokk uh, daan yi nga xamante ni wala sax amande nga xamanteni tay ji tek nañ ko seenub ndodd waye nak amande yoyé buñ ko bolé danaka jege ne ay 2 millions sept cent ci suñuy copar ñi nga xamanteni nak dañ leen japp ngir baña a charton teeg takk nguuka yi maanaam masque yi mo xam ci tal yi wala bërëbu jaayukaay yi ñom nak ku né eh, juroom bénn témé lañ la lacc ñoñu nak wute nañu ak ñi nga xamanteni nak dañ leen japp ci ñàkk charton teeg couvre-feu bi ñoñé nak junni ak ñaar témé lañ leen lacc ku né ñi nga xamanteni nak dañ doon am ay eh, ñaxtu ñeel couvre-feu bi nag euh, ñooñee nga nag jàpp nañ euh, gu njëkk gi rek jàpp nañ lu toll ci ñeent fukki doomu aadama bi nag ñu daal ci jàpp lu toll ci fanweer ak ñaar ci ay di boole rek moo la jox juróom-ñetti ni jàpp nañ leen rek ci ñaxtu yu ñu doon am ñeel boobee couvre-feu ñooñee nag yóbbu nañ leen ca kanamu yoon ba yoon jàllale leen ci def ay mbir yoo xamante tey jii mën na rek indi ay jafe-jafe askan bi wala ay coow yoo xamante ni tey jii kenn xamul fan la ñu mën a yóbbu waaye tamit ñu jàpp leen ci yeneen yoo xamante ni tey jii ñeel wàllub euh, jubadi ak yu ni mel yoo xamante ni tey jii daanaka yoon àndu ci benn yoon ñooñee nag yoon moom daf leen euh, denc maanaam li naan mandat de dépôt waaye nag boobee bilan nag dafa nekk bilan boo xamante ni bu njëkk bi rek la ndaxte ba fi ñu toll nii nag ñoo ngi ci couvre ba léegi te euh, bës bu ne wala guddi su ne rek dinañu wàcc di xool ñi nga xamante ni tey jii sartantaw ñu benn yoon ak li nga xamante ni tey jii moo dëggal gu ñu jël ngir mën a fàggandiku ci mbas mii di Covid 19. mu doon bilangu waa Géejawaay commissaire Madjibou Leye doon ko jël si waat ci wàllu gat liggéey bam jaajëf biram seen moo doon tënk yooyu lay kàddu euh, xibaar yi wëy ci euh, leneen soxal génn ko àdduna kenn koo xam ma nga woon ca conseil économique social environnemental di Sénégal bi nga xam si ma doon Cheikh Ngaydo Ba génn na àdduna démb la xibaar bi jëpp amoon na juróom-ñaar fukki at ak ñaar moom mi nekkoon ba fii euh, président commission lu jëm ci wàllum euh, culture tourisme ak sport génn àdduna ci turu groupe Excaf Télécom rédaction bu TV bi di kaddu njaal di ko jébal mboolem ay naataango conseil ak mboolem euh, état bu Sénégal ak mboolem sénégalais yi. xibaar yi woy ci beneen mbir mi ngi soxal mbirum sedd bi. ni ñu ko doon defe fan yii yëpp di ko topp sedd beek ay ngaañam waaye tam pexe mënu caa ñàkk ñenn ci sénégalais xam nañ ni qualité gi mun mënta ñàkk ci ñoom diwu gaag lu ci xew forootew ba tooy da ciy baax dana tax yax yi ruux ma ne a wàññeeku bu baax ki nga xam moo di Fatou Mbow jëmbul xam na loolu def na ci gëstu ñu xóot ñu ànd ak moom lii di bëru karité nek na luñu ñu jël jamonoy seddaay ji ak ngelaw bu bëre bi donté né sax dañ koy jëfëndiko lu bëre ñenn ci jaaykat yi faré ca score bu Grand Dakar di xam la ne ñu ci gis seen bop bu baaxa baax. waaw mi ngi dox parce que seddaay bay tax ah, c'est normal karité xam nga mom seddaay la ko di utiliser quoi voilà dox mom bu baax machallah ñi ci sant yalla quoi. Oui, ça marche. Les gens viennent par jour, on peut faire un peu de recettes. Mhm. Euh,

ici sooyi ne bu Malais bi ñu ngi koy jaayee 3000 ça dépend quoi amna beurre de cacao bi aussi xam nga rek boo nekkee ci marché différents clients ngay gis mais yëpp dañ koy gérer amul solo. li di bëru karité na te day nayil ak défar yaram bu ñu sukkandikoo ci yi Mansour Cissé di ab client mom mi sax di xamlé né da koy fandikoo sa su nekk même budul jamono yi sédday damay jënd karité pour di woo daal moom laay di woo sama famille tam mom la di woo daal moom laa préféré ci diw yëpp mom même budul dul sedd temps lépp dal karité la ku ko rek mën nga ci am wér gu yaram te sa yaram do am ay tas ni wala yaram bu fet ak yooyu doo ko am. ji na nag njaayum karité ak nuñ koy jëfandikoo nag day faral di wéy ak i jamonoom waaye ci jamonoy seddaay ju ñu nekk nii nag ku ci nekk da ciy jënd comme nu ko neexee. ñu ànd ci ak Sambou Biagi maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Modou Mbacke. ni koy tambalé ci Ligue 1 ñetteel bi journée bi jambar ba tay ma nga ci bop ba wane kon ñu dem ci Afrique wane sen bop ba tay ñu koy def. ba légui ñu koy def mom jaraf mi nga tuddu légui mom dafa euh, def match nul dafa bëjoo ak ki nga xam ne euh, kon ci di euh, jambar, jambar mi nga xamantene mo moo nekk ci bop ba ci sali ku nekk duggal ben bal lolu nak ba tax kon mom jaraf di Dakar mu ngi wéyandi ba nag ni di am taxaway bu am solo ben kenn benen équipe bi nga xamantene africain la mu am taxawaay mooy Teungueth FC mi nga xamante ne dafa daan kon euh, kii nga xamante ni moom mooy euh, ñaari tali ñaari bal ci benn dem ca stade du Diouf yeneen résultat yi nag mu jàpp ne kii di jàmbaar kon moom ak jaraaf dañoo bu jokku nekk dugal benn bal AS euh, Douane moom Mbour Petite Côte moo ko ñëw fekk si daan ko ñaari bal ci dara kéema nag moom mooy Njàmbur daan wala boo moom ak Snaps Excellence ku nekk dugal benn bal ca kon ca Louga Teungueth FC kon ak ñaari tali ñaari bal ci benn US Gorée ak Casa Sport ñoom tamit ku nekk dugal benn bal Euh, ki nga nag moom mooy stade de Bourg daan ki di AS Pikine ñetti bal euh, ci euh, ñaar ki nga xam nag mooy kon kii di Dakar Sacré-Cœur daan ki di Génération Foot benn bal ci dara. ñeneen la ñuy toppi sunu gay nekk ca bitim réew gaynde yi jàppale ni bu dee kuyaate moom ñëwul dafa absenté ci VSD bi waaye itam maane moom it dafa lajj ci kanamu ay naataangoom. donte le bariwul ñi nga xamante ne dugal nañ ay but waaye mën nañ jàpp ne seen taxawaay ak seeni club euh, xaw na yamamaay mu ku mel ni euh, ki nga xam ne mooy euh, Cheikhou Kouyaté moom. journée bi leen ko ndaxte dafa amoon problème familial loolu moo tax kon fubalul ci match matcham boobule xamante ne moom mooy match Crystal Palace Sadio Mané mu ngi doon ci derby bu am solo bi nga xam ne ñëpp ñu ngi ko doon xaar ci wàllu euh, kon euh, lii di euh, lii di champion Premier ba diggante Liverpool ak Manchester United ndam demul ndam dikkul kenn dugal sa moroom benn bal 0 à 0 la mujjee ci leeral dañuy ànd ak kii am nag moom mooy Xooja si Ba ñu dem ca Europe ci championnat yu gën a mag yi ñu yi ñoom daal di wane seen bopp lool ci championnat yi gën a mag Paris Saint-Germain bu Idrissa gànna Gueye ak Abdou jàlloo moo daal di daan benn bal ci dara Angers bu Sada Thioub Monaco bu Sofiane Diop moom daal di wane boppam lool ba muy jàkkaarloog Montpellier daal di koy dóor ñetti bal ci ñaar Mbaye Niang bokkul ci feuille de match bi Alfred Gomis nekkoon ci ban bi waaye loole terewul benn yoon Stade Rennais woy di am juróom-ñaareelu matcham boo xamante ni moo koy gañe Youssouf Sabali ak waa Bordeaux ñoom dal di dóor Nice ñetti bal ci dara Strasbourg bu Habib Diallo moom it daal di daan Saint-Étienne bu Boubacar Fall ca Premier League Liverpool bu Sadio Mané ak Manchester United dañoo daal di témboo Manchester City moo dal di dóor ñetti bal ci dara Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté Famara Diédhiou moom daal di wone boppam lool ca jongante ba amoon diggante Bristol City ak Preston North mu dal di dugal benn bu bi ba tax na équipe am boobee daal di gagné ñaari bal ci dara Naples bu Kalidou Koulibaly moom moo daal di door dóor yu métti Fiorentina juróom benn bal ci dara Keita Balde moom daal di nay bokk ci ñi waral Sampdoria dal di gagné Udinese Calcio Crépin ak Youssouf Sabali yi ca Belgique ñoo daal di dóor Beerschot ñetti bal ci dara waaye it équipe bu mbay lay bi dal di nay daan Franck Kanouté ak Cercle Rouge benn bal ci dara ca Grèce Olympiakos bu Pape Abou Cissé ak Ousseynou Ba daal di dóor Giannina benn bal ci dara kon loolu moo doon euh, tour d'Europe bu xooja Cissé Ba gis nañ tax ki nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly di capitaine euh, des Lions du Sénégal waaye tamit euh, ca ren moom Alfred moom mooy woon ci yompa bi. alors nga toppaat ba tey leneen soxal super coupe bu Espagne foofu jàppale ni kon Bilbao moo daal di rëkk ndiggul waa Barça Messi gis na lu xong ci dem nga ni démb match bu métti métti bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaarandi nag. ginnaaw Bilbao bi mu éliminé Real de Madrid ci wàllu demi-finale mu nga doon amal rendez-vous ak beneen euh, ponkal ci wàllu euh, Espagne boobule di FC Barcelone waaye nu mujj rek mooy euh, Barça dafa daanu. Bilbao moo def li ni mel ñetti bal ci ñaar loolu lañ ko daan moom mi nga xamante moom mooy Real de Madrid day firnde moom mooy kon FC Barcelone muy firndeel jafe-jafe yi nga xamante ne kon FC Barcelone mu ngi koy dund ndaxte euh, ci wàllu euh, demi-finale yooyu lee moom ci prolongation la mujjoon qualifié euh, ci wàllu finale bii lay tamit mu dem ci prolongation ak équipe bi nga xamante ne moom mooy Atlético Bilbao Griezmann moo dugal ñaari bitu ki di FC Barcelone waaye FC Barcelone comme nu ñu ko defoon Le égalisé le euh, kon Bilbao égalisé muy findel jafé jafé nga xamantene kon ma ca FC Barcelone jafé jafé sax dafa wéy ba Messi ci dafa mer ba lu def jouru Bilbao carton rouge carton rouge boobu nag euh, boo muyul dina ko dikkal leneen ndaxte boo ci règlement bu euh, ligue euh, espagnole boo muyul dinañ ko suspendre lu mu gàtt gàtt ñeenti match yoo xamante ne du ko football moom Lionel Messi ñi ngi xaar nag li xamante ne moom mooy dogal nga xamante ne moom lañ fas yéene jël li ñu mën da jàpp mooy super coupe kon ki nga xam ne nag moom mooy Atlético Bilbao moo fa wuutu ki nga xam nag moom mooy Real de Madrid mi ko jëloon niki ndaaw. mënut a ñàkk benn commentaire ci Messi. Ah, lu ko dal kañ la daf bay mbëkkaate ak mbéyaate waaw mooy match day toll foo xamante ne xëy na surtout liñ ko def nuroog genre humiliation parce que ñu ngi affiché quatre-vingt-dixième minute euh, waa ji ñëw dugal la bon dañ ci am mer waaye ku mel ni Messi yaakaar naa waru ci woon mer wala boog nga bañ a répondre provocation parce que dañ ko provoqué mhm. dañ doon ci biir match bi waa daf ko defar incursion mooy jàll ci kanamam di di daw di romb ko ci kanamam ci la ko daal di tourner mbéj ko donc loolu dafay jur ay carton waaye mhm. lépp loolu yëpp nag mun muy muy firndeel ne euh, FC Barcelone dafa war xam la mooy gestion match mhm. fam nga teg ay priorité super coupe tey warul nekk priorité ba FC Barcelone mm-hmm. ba ngay dem ay prolongation ñaari yoon ba ngay jël ay carton rouge mm-hmm. pour man am na leneen loo xam ne mu nga ca championnat ba surtout yow yaa ci gën a titre nga jël ko fukki yoon ak ñett mm-hmm. pour man waratul nekk priorité parce que ci coupe yi nga xamante ne ñu ngi ko teg moo ci gën donc FC Barcelone waroon na a ambition beaucoup mu seet parce que dans trois jours war na jouer e de finale Coupe d'Espagne nga xamante ne fou ëpp fuuf maintenant xamante qui mooy qui euh, di euh, carton rouge bi xëy na affecté absolument absolument ça veut dire que match boobu lee du football match championnat et d'union de du football donc mu bëri ay mbir yoo xamante la gestion en tout cas dans une grande équipe comme le Real de Madrid le FC Barcelone d'ailleurs Real ñu ngi lu Atlético euh, mais ko boo xoolee fin temps dafa génne joueur am yi mag yëpp Zidane. génne Benzema génne euh, Varane génne euh, Modric. génne ñooñu ñëpp. loolu dafay wa dafa bëgg a wane ni moom lii du priorité am. Mm. donc mais ci jàngat un peu Mbadou Messi dafa jëm ci fin de carrière gisoon ko temps Zidane. coupe du monde bu mu fi mbëkk <laughs> ay coup de tête. fekk la ñu mbaa du tey jii voilà Messi tamit looloo ko tàmbalee dab. mën na mën na am parce que da ngay toll ba benn moment boo xamante ne finalement pour nga contrôler wu dafay dafay mel dafa mel ni koo xamante ne amul expérience. nu muy bañ a contrôlé wu boo demee ba ba bay magal aussi da mhm. ngay ñàkk da ngay ñàkk da ngay naxay dret voilà ah loo a jëm ak naxay dret voilà mooy noonu donc <laughs> plus ngay am gën a am xadaar mhm. parce que pour yow mhm. képp ko romb sa wet da lay da la bëgg a tuutal donc da ngay am da ngay am ndax xadaar en nah, tout cas ah, fin de fin de carrière la nekk kooku moom jarul sax ñu koy wax mais euh, virtuellement loolu la fin de carrière rek mais bon am na encore un an wala deux ans ñu ko desee ci kanam ah. alors ñu wax ci mbirum basket afro basket 2021 bi tournoi bu Yaoundé bi bu Yaoundé nga ni Boniface Ndong génne na fukki joueur ak juróom-ñeent fukki joueur ak juróom-ñeent la génne ngir rek mën a euh, qualifier mën a qualifier ca Kigali wala boog ca Yaoundé ci tournoi bi nga xamante ne ñu ngi koy waajal tournoi boobu nag mun nañ jàpp ne même équipe yi ñoom dellu si waat ndaxte équipe yooyu Sénégal daf leen gagné woon ca Kigali mooy ki nga xam moom mooy Kenya Mozambique ak Angola Sénégal mu ngi actuellement 6 points kon bu gagné daanaka benn match ca Kigali mën ca Yaoundé mën nañu wax ne Sénégal mën na qualifié euh, ci li nga xamante ne Afrobasket, mooy afro basket bi nga xamante ne Kigali lañ koy amee ci 2021. mu war a am fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fukki fan ak benn ci février 2021 kon tournoi bi nga xamante ne euh, tournoi bu Yaoundé. ci liste boobu nag eh, entraîneur ba di Boniface Ndong woo na juróomi eh, jour yoo xamante ne ay locaux lañu ñenn ñi AS Douane bokk na ci alkali mu ngi ci Ndour eh, ki nga Louis Adams mu ngi ci woon Cheikh Bamba Diallo woo ko ak ki nga nekk moom mooy Serigne Bamba Gueye am na euh, ñoo xamante ne aussi ñu ngi ci DUC bokk na ci Thierno Ibrahima Niang ak ki nga xam moom mooy kii di euh, Pape mustapha Diop euh, kon am na keneen koo xam ne woo na ko mooy bu jógee kon ca FC Barcelone mooy El Hadj Omar Branco Badio moom mu ngi ci FC Barcelone moom nag woo na ko dellu si waat na ci équipe nationale. alors doon naa xaar nga bokk ci liste bi sax ndax yéeg naa ni yow ko xarañ ci mbirum basket non euh, man lamb ji buubee rek. danaa bokk ci liste équipe nationale. bu lamb hmm. lamb. wallaay waaw man gën a aay. wallaay ndeysaan waaw ah, kay jërëjëf. bëri xëy nga yër yéen kaay yi tey ah. xëy nga yër quotidien yi. waaw waaw xëy naa ko yër waaye daal daf ne Abdoulaye moom moo gën a. yër hmm. gën a nekk ci biir. kon baal ñu ànd ak moom xool yéen kaay yi xëy di génn lu ci gën a fees Abdoulaye Ndiaye moo ko faram fàccee ay mongo mangoog yëgle kaay ngoog ci l'observateur journal groupe Futur bi may dem ci goudi jeex tak tàkk de couvre-feu bam fi tegoon ak état d'urgence bi mom lañuy ñuy déglu de président Macky Sall sous contrainte ndax mom njiitu réew mi Sall lamtoor Bourguedé cor Mariam fay day yok lu jëm ci mesures yi wala déet ndax lu jëm ci nak li di weekend yi dañuy def couvre-feu 18 h ba 5 h du matin manam drom benn waxtu ci ngone japp juróomi waxtu ci suba lu ci mën di am bu sen ndaje bi nga xamante mom lañuy amal de ak conseil national des gestion des épidémies ak saisine assemblée nationale bi mané tay ji dana leer nañ ñi de source aané leeragul moo taxi ba tey de ci bopp waa Thiès ak Dakar mu ne de jeexal nañ tàkk niki démb ci dibér ji seen couvre-feu ak état d'urgence fi mu nekk nii de ñëpp ñi ngi diglu président Macky Sall tous à l'écoute de Macky ndax promulgation de la loi jëm ci état d'urgence beeg nañ ko modifié dana leer naa ñi tey vers un nouveau décret ma ne de loo ci mën di dégg mooy lu jëm ci mesure yooyee ndax danañ ko taaw lawal ko ba ci nag lu ci mel Jurbel kaolak ak Ndar géej ginnaaw ba nga xamante ne barab yooyee mbas maa nga fay def ñoom di law nu ko neexee ni yomb guy sax le soleil yéen kaay ne buñ ci gaawul musiba dina am de ndax flambé kaay yi ca Kaolack ak Touba Mbacké Ndar Géej Le Soleil ne ko may ma ma xoola ma ni mu yokkee ca Kaolack ca Touba ak ca Ndar Géej ma ne de ces autres foyers de Covid 19 qui inquiètent di tànge am na ca juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñaar 632 nouvelles contaminations la illallah Muhammadu Rasulullah juróom-ñeent ñu seen bakkan wati ci njeexalu ay bés bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wante de jàppal ne doon toppatoo alhamdulilahi rabil alamin kon bokk mën a de loo ci mën di dégg mooy fi mu nekk nii nouveau variant yi fii Sénégal doy waar ba tey de moo tax tribune yéen a kaay ne weesu na doy waar ëpp tool mën a de journal groupe des médias bi ne xoolama quatre élèves testés positifs à la covid 19 ma nga amee ca lycée Jean Mermoz bu Ndakaaru la cey ñun fu ñu jëm ak feebar bi fi mu ñuy dugal mën a de école yi laa lox ñu ngi bëgg laal ak feebar bi vox populi ne xoolama bilangam bi covid bi mën a de nag ci ay bés kocc kocc kocc kocc juróom fukki ci ay doomu aadama ci ay bakkan wadd na la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun cey cey ma ne xoolal ma lii vox populi junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñoom ñoo amee mbas mi ay waaj ma ne ne quotidien yéen kaay ne moo taxi de traitement malade yooyu ci domicile yi fi mu nekk nii de vivre avec le moom dëkk doomi jàngoro bi sa biir kër amul sañ a bañ moom kay dañ la fay bàyyi rek xanaa di la toppatoo xolama li ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay waay tawet de ma ne ñetti junni yi ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent fi mu nekk nii ñoom mën nañoo jàpp ne ñu ngi seen kër ñu leen di toppatoo di leen bàyyi xel ci yëgle kaay ma tiital covid bi kenn xamu ni mu toll mu ne bés bu yàlla sàkk lu toll ci juróom-ñaar ba jëm ci juróom-ñett ci ay néew sun nañ leen ci atum bi jamono ji nag ñi ngi ci ñaar fukki enterrement ci cimetière bu Yoff moom boo fa demee jàppal ne ñaar fukki enterrement actuellement du samay kàddu enquête yéen kaay ko wax mu ne de cimetière bu bàqee bu Touba moom ñi ngi ci 10 600 997 enterrements en 2019 maanaam fukki junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari néew daan nañ leen di denc ca bàqee bu Touba am nañ yàlla suuf oyof seen kaw mu de ci atum 2019 la xew mu de ci atum 2020 jamono ji ñi ngi ci nag 12 277 waaye ñun kon fu ñu jëm fu ñu jëm fu ñu jëm mu de 12 272 enterrement la ilaha illallah ma ne mbir mi doy na waar waaye xoolama lii tribune yéen a kaay yëglekaay des médias bi ñëw cay ci li xoolama koppar yi téeméer ak fukk ak juróom-ñetti ci ay milliards yoo xam ne union européenne ñoo ko yullee woon ci cënu gaafaka ngir jàppale ko wàllu mbëkk mi émigration ci Sénégal cin bënul fuqul saañ bëréer ana fu mu dem ma ne xaalis boobe fan la dugg loolee la Boubacar Seye wax nag ñu ne ko ngattiiw jàpp ci aéroport bugaan ngay deni ak cellule gëm sa nekk ci Europe ma ne la ñu bëgg mooy ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee laal Boubacar Seye mi nañ ko baax tey itam li ñu war a leeral dafa war a leer Sénégal koppar yi fii yàgg dugg dafa bëri te kenn xamul ñu koy jaaralee loolee la ñu war a auditer leeral ko ma ne loolee moo ëpp solo laal ëpp fayda li ñuy def ki ñu tegoon bët kayeng ci l'observateur journal groupe Futurs Médias bi xoola ma nopp dalootina ma ne day ki nga xamante ma ne mooy baaba malaa be mbaxuru ma ne moom mii ba tey ruux siiru jamono ji mbiram ña ngi koy càmbar de diggandi tar nag yëglekaay groupe Futurs Médias bi ñëw ci nag naka la nag ki nga xamante moo doon woote bi yónent ca Kolda yee naka nag lañ ko jiñee xale fukki at ak ñeent bi ndekk tey yoo moom mi yaayam la soxla woon yaay ji nag la bëggoon a jot mënu caa jot mu ne ñattiw te xale bi libération yéen kaay nañ mbirum nag daawda ba moomee ne fësalaa nañ de nekkata xañ beneen xale bu fukk at ak benn soxnaam la woon ay nga ne lan asbunallahu ma ne soxnaam la woon juróom-ñaar nag ci ay sectam yooyee cëm ñam doon bokkal jëfi jëfin yooyee maanaam liggéey mbokk wootem nga naa ne li ngat yu ñoom it de cëy lii lii nopp daal waxtu wu nekk rek mu am gan du mukk nopp Sénégal du wet waxtu ni mo am gan mané li la ci wax baye yeen li ngeen deg ñu yendoog jàmm yendoog jàmm Abdoulaye Ndiaye jaajëf waaye itam jàngeen jëf ci ànd bek ñun ci sen télévision di TV li moo laaj ci xibaaru digg bëccëg yi rendez-vous ci xabaar 19h ci wala 20h ci français balay bobu sen émission diisoo 15h30 tay daañu waxtaaneem mbirum Boubacar sey jité Horizon sans frontières yone tek ko loxo depuis ajuma ci 2h du matin ba léegi ñu waxtaan ak ñenn ñi sàmm ak doomu aadama ci biir Sénégal gii dana ca bokk boobu la debaa ay juriste xool na dëgg-dëgg lu waral jàppuk Boubacar Seye mu jiite Horizon Sans Frontières kon ba ci kanam émission diisoo 15h30 jaa ngeen jëf.